ok jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall jëmbu jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall jëmbu jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall jëmbu yàlla yàlla doole leeram barkef Cheikh Ibrahima Fall di siyaar sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Fall menda sunu borom yàggal ko fi war naa lim naa liggéeyal ko maam ju baax ji yëpp ma def ko ni ko bëggee noonu laa koy ñaanal sangam bu tedd ba sëriñ Mountakha Mbacké su borom ak dundam war naa lim ko maam ja mu def ko ni ko bëggee te ànd ko murid di di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi nuyu mboolem murid yi di nuyu mboolem Aliou Cheikh Fall gépp di wax ne ku yàlla bind ngay rek Aliou Cheikh nga loolu yàlla dogal maa ngi leen siyaar waa réew mi ak bitim réew siyaare jëw ni réew mi Mame Madi bitim réew suñu Ousmane Yade yooyu ni soxna yëpp soxna jaaribatu porte parole suñ baa ko koriya jëbtu ma la xib di mbokki Thiès gépp euh, ñu ne ci diwaanu cees gépp ñu leen siyaar ñu ñu ngi fi tey Medina Fall kër Cheikh Ibrahima Fall Lamba Mouridine fii xam ne fay dëkk diir bu yàgg suñ dowa woole fekk ko njëriñam suñu am yabaloon ñu fi daaw ñoon fi ñoo fi liggéey bâtiment yi ngeen di jàkkaarlool euh, ñu dama leen ko daaw nag ba suñu fi la gàmmoo ak gàmmoo pare suñu yow ñi dem Touba doon àggale mbaar ma ma fa jugee ci koor gi ma fa jugee ci tabaski yi bañ jugee ci tabaski gi nag mooy delluwaat leen Thiès àggale ko ba mel na war a mel wala gàmmu gaa kon nag ci loolu ci lañ nekk mel na ne bâtiment bi toppoon ci bâtiment sëñ bi mi yokon ci yokkoon dañ ko war a kuule jàpp nañ ko sax yaakaar naa dibéer gii di dimanche mel ne nag fii liggéey bi toll na xam finition la ci finition la toll na am ni ñëpp xam nañ ne bi war naa ñëw tey sax ñëw na euh, ba natt gris yi ak yi fa war a defar yëpp ci porte fer yi bu fa jugee aluminium bi porte yi ci biir yëpp lañ ko war a def bu fa jugee ñëpp xam ne karo am na ci wàll peinture am na ci wàll plâtre bi am na ci wàll kon loolu la ñuy soññee soññ mbooleem murid yi ak mbooleem fi ab jullit nekk murid ne fa ñëpp rek ñu ngi leen di soñ ci liggéeyu Cheikh Rafal bi ndax xam ne ku yàlla bind ngay nooy amel nga borob liggéeyu Cheikh Rafal kër ndax moom kat li ko daan dikkal ci alal ci alal alal ci ci wërsëg bu ko jëmale woon ci kër fi junni at na fi bàyyi kër goo xam ne jamono du ko jamono di ko dab waaye lu ma a am jox na ko borom Tuubaa fii ngi toog daana fi takk ay gaal daan ko yóbbul borom Tuubaa kon kooka kat la ma def def na ko li li des nag ñun mooy ñu fexe ba fay bor ba mooy kër gi fi bàyyi di kër kër gii yees na am ni adduna gépp kër gi lañ mën a wax ne kër Cheikh Rafal la goo xam ne fi la ko bàyyi boppam fi ki fi nekk Cheikh Rafal sañ naa ñëw ubbi dugg kon kër gii nag la suñu am di bëgg mu yees mel na mu war a mel mingook ngoog jamono ñu commencé woon fi bâtiment yii boo war ci finition lañ ko nag finition boobu nag euh, ndax dimanche dañ fas yéene kuule li des ci kulaas yi buñ ci buñ ci jugee nag fas yéene finition ne mooy ci wàllu carreau plâtre peinture port ak lamp yi lépp rek loola nag kon mur yi ñu ngi koy dégg fu waay nekk rek nañ joxe ni numéro yi nga xam ne ku ci bëgg a barkeel da nga ko ci dugal boo ko ci dugal dina agsi incha allah. ñu defale ko ci liggéey bi te xam ne Cheikh Fall gis na ko li sëñ bi doon wax barki démb nag lu jot a bàyyi xel la nee na moom daal li koy yéem mooy li tax Cheikh Fall bàyyi fi Thiès ba léegi rek maanaam kër gi boobu ba léegi ñu soog koy defar daal loola nag euh, lu jot a bàyyi xel la xëy na ñun ndaw yii ba ñun jamono jii la bëgg a dimbali te xam ne ndimbal li kat ku ci def sa ñaq baa nga def sa doole baa sa wërsëg da nga ci am ndimbal loo xam lu lii mun la ko may jàpp naa loo taxam bàyyi ko fi ba ñu mën cee dimbaliku ndax jamono ji yàqu na maam nit nit jamono yu bëri yàqu nañ jamono moom fa ne woon ne rek nit ñi sa ko soppeeku rek waaye sëriñ bi moom saa su ne daf bàyyi loo xam ne mu ca ngoyee loo luñ ci nit yi nit yi jamono yàq-yàq na boo ca ngoyee yow yàqu sa da ci bokk bokk na ci liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall Lamp bokk na ci nag ci këram gii ci Thiès muy santaane fi liggéey bu toll nii mel na nag képp koo xam ni yaa ngi cee dugal sa ñaq wala sa doole wala sa wërsëg lu jamono yàq-yàq-yàq yàq lu nit yi jamono yàqu-yàqu yow suñu borom mën yow suñu borom mën na ci musal yamina mi ci liggéey Cheikh Fall boobu ndax moom kenn di ko liggéeyal di di di yàqu defar rek te defare moo nekk ci liggéeyal ko kon nañ takkaat laxasaay te liggéeyali ko te xam ne li ñu am nañ xam ne moom moo ko moom ndax moo ñu dimbale ci tawfiixam ak ci jaayanteem ba lépp mën a tay tey ndax fekkonté ni bam nii ba fi ñëwee moom ba nga ba ñëwee wëri borom tuba ba gis ko bu fekkoon daa ñëw rek liggéeyal boppam ba mbir mi ci bopam rek la yem waaye ba mu ñëwee daal liggéey ngir mboolem ku yàlla bind ngay nooy xaj ga ca wan wane kii borom Tuubaa ba ñëpp mën cee jariñu kon kooku bu soxlaa rek la gën mooy def ko ni ko bëggee ah, mbir mi nag na ñëpp xam ne moom la li mu santaane ala kulli ayin ku jàpp ne yow mbaar mi rek saw jëne ko téye mën koo rocc ku jàpp ne liggéeyam biit yaa tax muy doxit mën nga ba man ak ñëpp ci bokk yam kenn téye defarul liggéey moom rek moom rek la waxtu woo ko neexee ak jamono ko neexee saa yu ko neexee lam bëgg mu dox ala kulli ayin dana dox ku ci jàpp ne da nga ba rek mu gàddu coono ya mo ngi dal ci liggéey yëpp kon nañ koy góorgóorluwaat te fas ci liñ bëgg ndax Cheikh Rafal mooy ki nga xam ne euh, lépp lu waay jël addiyee ak lu mon toll jëmale ko ci moom te yàlla rek tax jafe jëm jafe jëm la fekkee ba coono yi mu la fekkee ba lu mu mën a fekkee nga fas ko ci liggéey booba nga fas ko ci ne maa ngi ci sàkku lii may jox Cheikh Ibrahima Fall lu mu mën doon loolu nga fas ko ci ngir mu tàggoog yow bu dee aw safaan la bu dee ay xéwal nga ko ci ñoddi Cheikh rafal ci gën a gaaw Cheikh Fall jigéen gaaw wax naa ba tey nag leeral naa ba ne daay guy tàkk ab kopp ndox fayu ko mooy yor yitte yitte joo xam ne leer na la yitte ji euh, leer na la yitte ji boo demoon ci sëriñ di ko ñaanloo dana ca laaj million nga nga dégg wax ji ci Cheikh bi la tax nga yëkkati francs def ci naan dana nangam déedéet Cheikh Fall moom nekkul foofu da nga koy jox la nga war a jox mu xam ne li nga ko jox soo ko joxee yàlla rek a tax.